audu billah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di yaatal xeltiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi ànd ak seen jotaay yi waajal tabaski tey ñu fas yéene waxtaane ci wàllu rendi am tabaski nuñ koy rendee ak jur gum mën a doon nuñ koy rendee waaye ginnaaw tabaski aay rek moo tax ku wal mburu tuddub dëkk faaw ñu tudd ko mbokk yi ñu ñëw ci thème bi kon nit buy rendi la muy rendi da koy tëral kanam ga féete xibla xibla mu ñu fi mooy fi ñuy jublu bu ñuy julli kon kuy rendi day tëral la muy rendi mu tëdd ci wetuk càmmooñam xar kanam ga jàkkaarloo ko fi ñuy jublu bu ñuy julli muy xibla buy rendi mu wax lii bismillah wallahu akbar loolu moo gën bu dee am tabaski la nag bu ca mënee yokk baat yi dana baax lool muy rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kooku baax na ba bu ca mënee yokk baat yii inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara samaawaati wal ardo xaniifan wa maa ana minal mushrikiin inna solaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil caalamiin laa shariika lah wa bidaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin loola bu dee tabaski boo ci mënee yokk loolu day gën a baax waaye daal lii yépp ko ko mënul bismillah rekk baax na ba léegi dañuy wax ne su fekkee joxoo kenn mu rendil la sam yaa koy rendil sa bopp boo mënee wax bismillah wallahu akbar teg ca allahumma haada minka walaka muy yow yàlla jur gi ci yow la bàyyi ko te ko moom ndax yow lañ koy defal ndax sa bànneex ak sa tuyaaba rek lañ ciy sàkku ak sa ngërëm kon loola lu jar a bàyyi xel la tabaski bi itam euh, ni góor mënee rendee noonu la jigéen mën a rendee niki noonu itam yow mi moom tabaski bi boo ko munta rendi boo joxee kaneen mu rendil la loolu itam dara nekku ci boo joxee kaneen mu rendil la loolu itam lu baax la dara nekku ci waaw kon mbokk yi seen euh, rubrique yaatal xel siin loolu la doon waxtaan ci wàllu rendi bi xanaa ñu yokk ci rek rendi il faut itam nga dagg boli gi ak ñaari siddiit yu mag yi waaw nga dagg boli gi ak ñaari siddiit yu mag yi ci benn yoon nga xam ne nit bu doon rendi dagg boli gi daggagul siddiit gi mu teggi paaka bi bëgg a continuer waat su boobaa a ah, loola mu rendi daganul moom daal ci benn yoon rek nanga nga dagg siddiit gi ak na nga dagg boli gi ak ñaari siddiit yi loolu nañ ko bàyyi xel bismillah googu itam bu ko nit ki bàyyee xëy na da koo fàtte bu ko fàttee ba bàyyi ko ba maanaam daal bu fàttee wax bismillah dara nekku ci dagan na waaye su fekkee nag moo ko tey moo tey bañ a wax bismillah su boobaa loola kenn du ko lekk mbokk yi kon loola mooy li seen euh, euh, chaîne bii di yaatal xeltu yin indi woon ci wàllu tabaski ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon tey ñu ngi doon waxtaane wàllu rendi incha allah ngeen ñëw bu baax nag abonné wu ci seen chaîne bii di yaatal xeltu yin mbokk yi maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa jëf